taxul Fatick la de defe naa <laughs> li ñuy financé Fatick euh, mm-hmm. du ñu ko financé euh, Thiès mm-hmm. euh, li ñuy financé Fouta mm-hmm. du ñu ko financé feneen ñu doon ne loolu dafa war a rompre bu ñu bëggee financement yi am njëriñ ñu koy joxe sur des bases objectives man ma gis yow nga dem première sortie nga dem Bambey Bambey mooy sa fief politique nga dem Bambey promettre fa un milliard mm-hmm. ne boo jógee Bambey da ngay dem Ziguinchor mm-hmm. ana rupture bi mm-hmm. est-ce que nekkuñu di répéter les mêmes pratiques yow yaay ministre microfinance <laughs> ak économie solidaire nga dem Bambey brandir un milliard un milliard ëpp na ci Bambey de damay waa Bambey buñ ma mere waaye un milliard financement ëpp na ci Bambey nga ne boo paree da ngay dem ci fief Ousmane Sonko et puis waxuloo sax njega ñaaw mais mais mais mais mais waa njega ñaaw yëngu leen les Sérères vous êtes trop modeste et trop humble faites-vous faites-vous en pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi nga nga nga. man j'aurais compris sax nga ne nga nga ne njega ñaaw pour la symbolique mais nga ne boo jógee Bambey sa fief politique yow da ngay dem. Ziguinchor xam nga xam nga Bambey boobu. mel ni yéen a ngi politiser l'affaire. dinaa d'abord balaa ma sori li may njëkk a wax xam nga sax nga ne. Euh, d' abord sama politique Bambey Bambey euh, sama politique mu ngi dépendre ci li parti bi wax cest man. li parti bi wax c'est-à-dire. non lu lu lu lu lu lu ñu parti bi def loo loolu la ñuy def Bambey politique ma du politique en tant que tel. politique woo loo def. non non non finalement du politique en tant que tel may mun a. ah bon. non non non pas du tout. sama politique xam nga da nga ci a ambition ambitions moom wax nga ko évidemment nous avons des ambitions. mais les ambitions qu'on nous demande de réaliser pour le projet ñun benn ambition la ñu am mooy le projet di mën nga ko tuddee loolu mais en fait du loolu xam nga du loolu parce que stratégie bi ñuy def premier critère bi mooy le fait de n'avoir pas reçu de financement antérieur benn localité hmm? bu recevoirul de financement antérieur waaw ñi ñuy financé ñëpp amu ci kenn koo xam ne moom nga am financement. waaw mais y' a plusieurs. mais bàyyi ma ñëw rek beneen bi it le conflit d' intérêt. maa ngi nga éviter Bambey. mënoon nga jël beneen localité dinaa la wax lu tax ma jël Bambey. lu nga jël Bambey. parce que tey man su fekkee ne damay dóor damay yar ma teg loo xam ne tey ku ko deful damaa fas yéene defanteeg yow ba mu leer boo ko njëkkee ci say mbokk Bambey boobu nga wax. ku fayul nga jaar ak moom fa nga war a jaar boo ko defee Bambey boo demee feneen di ko def ñu ne ah kii kat ci ay fa mu dëkk la ko njëkkee te juste ça. waaw mais. Euh, beneen bi non bàyyi ma ñëw rek am une prégnance nationale. waaw waaw c'est-à-dire yow. mais foo nga commencé fenn yëpp nga war a. teg ci yow waay may mun a foo nga. commencé fépp nga war a joxe exemple. xaaral nga bañ a jël Bambey nga dem beneen localité. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw ñun développement endogène lañ wax. nee naa la benn loolu mooy première raison bi rigueur bi ñu ciy def dama koy appliquer ci Bambey ba gars yi xam ne fii laa ko njëkkee peut-être fu ma dem day yomb beneen bi man régler loolu ba pare un milliard du pour Bambey de la première phase te Bambey pas Bambey mais c'est Diourbel d'abord pas Bambey c'est Diourbel raison beneen bi ma lay jox mooy raison de Diourbel. ce fief. non. religieuse sociale. idéologique. waaw tu peux le voir comme ça conflit am na de. ma jox la benn information. Ah. dinaa jox benn information boo ah. xam ne. la région de Diourbel est la moins euh, dotée. pardon sa fief religieux sax madame religieuse. la région de la région la moins dotée en intervention yëpp nag. Fatou Diagne liggéey na foofu de. ci wàllu non dama lay wax ma ne la c'est la moins dotée la région de Diourbel man ay critères def ko de. ONG yi demal nga gëstu nga dem de répertoire des ONG Diourbel moo gën a néew ay ONG région de Diourbel benn critère ba am fu ma ko teg benn ñaareel ba it man je man j'ai une approche qu'on appelle l'immédiateté il faut toujours commencer du niveau le plus proche avec une approche de cercle concentré tey su ma amee toutes les informations à ce moment précis à ce temps précis sur un endroit je suis dans l'optimisation endroit booba am naa toutes les informations tous les critères pour réaliser je vais parce que damay lutter contre le temps waaw mais da ngeen war a éviter aussi euh, di di générer genre suspicion yu yu yu mel nii mënuloo jóge Bambey muy sa fief nga bëgg a dem Ziguinchor le fief du du du. mais pourquoi dama ko Dakar. Euh, non c'est pas tey Dakar. non non c'est-à-dire. Ah. da ngeen da ngeen war a. Euh, jaxase affaire bi mais su ma waxoon su ma non c'est-à-dire euh, may mun a tey su ma waxoon Bambey Kolda dina am beneen raison beneen lañ keneen ko wax leneen c'est-à-dire critères yi critères yi yi ma lay wax nii ce sont des critères objectifs. nee naa la la région de Diourbel c'est la région la moins dotée en intervention. que que état bi que muy les ONG. dafa am répertoire ONG li am région yëpp ñoo ëppale Diourbel. xam nga xam nga xam nga et et que j'y pense Aïda Mbodj Bambey. Mhm. moo yow Bambey microfinance économie solidaire Aïda Mbodj elle est indétrônable à Bambey c'est la patronne elle a fait tomber tous les hommes ku ñëw mu tër la yow danga am ambition da ngay préparer wu aux prochaines non da nga bëgg a da bëgg a bàyyi rek ma jox la danga nga bëgg a jël le conseil départemental dañ nar a am gerde financement financements waa Bambey moom dinañu am financement ba ba ba ba ba doyal ci est-ce que mënuma am suspicion politique que yow da nga nar a utiliser instrument bi aussi politiquer ko boo ñëwee financer léegi aux élections locales en 2027 euh, nga mën a euh, am euh, le, le le le vote des le le le euh, la, candidat la, la limite elle est ténue hein. Euh, Maïmouna je ne serai pas candidat xam nga lu ñu président Ousmane Sonko wax. ah. encore une fois président Ousmane Sonko le président du parti parce que tu es dans la boo boo nekkee ci politique rek je dis président Ousmane Sonko. def ñu ne mënuñu nekk ministre ba pare di dem di def politique pour nekk ay maire wala ay kii mënul nekk. par contre fu ma toll moom damay jaayante renforcer le Pastef et la coalition Diomaye ça je le ak nu ma ko mën defee. ah mais da ngeen di politique mais ma ñëw ci euh, euh, Aïda Mbodj bi ngay wax Aïda Mbodj c'est notre bàjjen. d'accord. on va travailler en harmonie. d'accord euh, Aïda Mbodj nag moom. Eh, du maye dara ci politique. waaw ba tey nekk nekk sa bàjjen. Eh, ba muy nekk PDS nekk nekk PDS mu am ñuy bëgg a eh, laal baasam baasam kenn du ko laal de. non xam nga xam nga Aïda Mbodj on est en coalition dama lay wax benn mbir xam nga man man je suis fien de souche ñu am rupture ñun ñoo ko ñoo prôné développement systémique du Sénégal. ñun ñoo prôné souveraineté ñun ñoo prôné rupture yooyu yépp ñu prôné tu tunu bàjjan ay boo ñëwee fekk si ñu mais dañuy ànd ak moom tàllal ko loxo dem lu question ay baal ak ñàkk am baal parce que man je ne serai pas député fekk maa ngi nekk ministre je ne serai pas député. fa teg sa nit je ne pas maire. et doo fa teg sa nit. du fa teg. xam nga gis nga les logiques. de non moo tax man la ci parti bi lay aju xam nga wax naa la ko sànq nee la parti mooy déterminé sama politique moo tax bi ngay wax ambition. mais yow daal doo présenté wu local. doo présenté wu législative. non du ma ci présenté wu benn. var bi daa métti parce que euh, euh, le président du parti. Ah. et le président de la république Bassirou Diomaye li ñu sant mooy ñu def résultat ci suñuy ministère. waaye xam nga gis nga euh, la man li may gis. Hmm.